moo tax ma ne la lu ne loolu yëpp lan la woon defar ay mbégte la woon waaye nag euh, gis nga diggante doomu aadama ak doomu aadama la gis nga waxal sa moroom lu ñaaw dafa mitti da dëgg la feuse ñoo xam te dëgg de hmm, neexul dëgg du romb na ko ji ñun ñii dangay gis dañuy def nii ay émission wala dara di saa ndeysaan da dangay seetaan ba ki àgg hmm. di dugg commentaire di xool ñi ne da ngay gis dañuy saaga sa ndey ba mu saf hmm. saaga sa baay saf dëgg la mm. ay temps mu cuq la de mm-hmm. da ngay jé da ngay faay nag mais ay temps da ngay jékki-jékki am bu la laal la ndax boobu nit nit rek la nit waa jikko nit bi nag mooy ñëw nga mm-hmm. doon nit mm-hmm. ñu saaga sa ndey te ndeysaan dangaa toog di leen béggal dangaa toog ñuy wax ngeen di waxtaan mais xëy na li ngay wax en ñu nekk seeni clavier saaga sa ndey ba mu tooy saaga sa baay ba tooy wala wax loolu bon nga xool ko ci sa bopp rek gis na muy naqare asmaan nag moom ay waxam ñeneen ñam ko wax dafa ngox bu doon feneen la mais ca ñam bokkal teraanga ak liggéey la ko wax. ñam bokkal liggéey dëgg la. kon dañuy waxante dëgg. Mhm. góor dafa am yu moom ak yu moom. Mhm. gis nga nit loo ko bëgg-bëgg yéen ñii borom musóor yi soppalte bul wóolu ngeen. Mhm. da ngeen di cuubu comme ay dof. mais audio yi nii jigéen def ko góor a ko def. xam man sama làmmiñ bi damul sama poche xam nga jigéen dafa bàjjen yow bu fekkee da ngaa dend ak Ousmane moo lay xas nga ne Thiel man loolu moom mënu ah, ma ko nee jigéen ñi dañuy cuub non non peut être ñeneen ñi si ñeneen pourtant audio a ko def ah, waaw ko moo ko def war naa toog di jëw góor déglu ma yow yow yow yow yow yow farak gel yi rek ñoo dàq fen ñëpp asma jëkkër ak jabar <laughs> yow imagine nga wéet ak jigéen mu jàpp góos naan la yow kii nga naan góos ban la ah, sus bi fi gii bi fi antenne gos jàpp yàlla bu mu yëg sa kaw nga naan ne xool mun naa la yow kii loo xam di nga ko wax danga yebbee ko loo xam di nga ko moom da un ku benn côté mhm. xoolal li ma moom du ay audio yoo xamante ni la daf ko wax nit pourtant saa ni ko ko de soxnaam la doon waxal jabaram bu mhm. mu takk ci farata yàlla ak su su Muhammad mhm. mais problème am kooku weer ko dëgg la ana ngor du yoon du yoon nañu wax ana ngor. dëgg la problème mu am. Mhm. diggante ma kooku. Mhm. kooku jël yàq àddunaam yàq na àddunaam de yàq na ko. Mhm. ndax fa doon am teraanga siggil ko fa euh, foofu nga xamante ni. ñàkk na ko def lépp tey ñoo ñoo ko dàq. parce que nag wax ya dafa diis de. ah non non dafa rëy. wax ya dafa rëy bàjjan. dañu waxante dëgg. wax ya daa luur ba dee mhm. gis nga nit ki boo waxee nit ba mu jam ko mhm. nga naan garaaw naa garaawul jëlal wax ji nga retourné ko ci sa bopp nga xool mbubu mi nga sol bu la jox rek ni maa ko wax d'accord ñun nag ñu ngi ñaan ñu ngi ñaan yàlla suñu borom ci dara nag leneen loo xamante nii mhm. léegi ñun presse lañ ku laal bi laal ñu ku leen laal laal mais ku ci deful yoon it ñu wax daal boobu ba léegi kenn dégg ko mais génn na leer moom dañu presse bi lañ am ku ñu tuutil yaa xam ñun tuutiwuñu dama koy faral di wax waa ji fan yee ju ngi wax mu naan yi mun ma ne ko man du ma journaliste bu ma ko waxati man animateur laa di chronique dëgg la journaliste da nga koy wax ña ña ña demoon ay feneen ak feneen jàngi ko ñoo yor seen carte doon réseau man du ma journaliste léegi nag golo gu ñu ne la journaliste nga bës ko accepté du ma ko nangu presse bi kenn du leen xas. kenn du leen laal kenn du leen presse en ligne bi télé yu fi nekk ñooy la. ma ne presse en ligne bii. Mhm. télé yi fi nekk yëpp di bal balbalu di jaay ngan presse en ligne bi ñoo di seeni i bàyyi. rawatina télé Sénégal ñooy dem fi ñuy dem. Mhm. di wax fi li ñuy wax di lijjanti ni ñun liñ fiy indi sax yéen da ngeen ko indiwul da ngeen di sàcc sax suñuy image. Mhm. di ko teg di ko teg dëgg la respecté leen ñu ngeen jox ñu cër. waaye ku nekk ci presse def loo war def juumit ñu wax la ko. dëgg la dañu waxante dëgg rek te yàlla tax dëgg la. <laughs> fii mennum presse en ligne bi ngay am événement cinq heures de temps ñu directal la lépp. wala ñu waneen la lépp mm-hmm. complexe télé yee tax dañ fay dem joxe fa seeni quatre cent et quelque wala ay un million ñu wane leen ci deux minutes romb leen mm-hmm. kon respecte leen ñu ngeen jox ñu cër ku ñu joxul cër ñun xam nañ suñu bopp presse en bi yéen télé yi presse en mooy seeni ñooy seeni baay ak seeni papa ñun la ñoo fi ne moo tax it Kouthia mu ngi ci neex naqari waaye nag ku deful sax dañ la koy wax wax dëgg fa yàlla Kouthia daa bëggal Sénégal yëpp mm. ku nekk amel nga ko njukkal ci mbégte yow fecc fekke woon nga ana daal lii ku ca ana daal lii am rek daa waroon nangu fekke woon ko fi waaw loolu yàgg na dëgg fa lu ne loolu ma ngi démb yi ñoo ko fekk waaw démb rek démb rek maa ngi naan la nga wax na sa quarante ndax yow doo nee vert nee mauve nga yàgg na nii ku laa xam ne yàgg naa bëggal jaam ñi yàgg na <laughs> waaw kon dañuy dëpp taxlu noonu rek mm. daal di dem ca eh, ndaxte bu pëte gale mm. moom ak Mario ñu gis ne diggante bi daal daa mel ne ñagas na neexatut ndax ginnaaw bi nga xam ne sama gars yi nga xam ne dañoo dañ ko dugg nañ ci ku nekk si page am. Mm-hmm. kenn ku nekk fekk nañ ne kenn ku nekk si biir mi nga sa photo morom. Mm-hmm. waaye dama damaa yàggul dara Mario moo na moom lu takk ñaareel. Mm-hmm. man daal Sénégal suyu Sénégal. ak xale yi jàppale soirée ba ndaxte daal di jël micro bi di ko way xaritu Mario yi ca ginnaaw. ñu ko waxoon cat daal dafa daal di. Ah. gu bëri gii. mais rek daal sa photo jëkkër. parce que fenn yéeme na nag fenente gi fenente gee bëri hmm. ak bëri wax mbele mbele de coow bu ñuy nobante di soqorante di hmm. bàjjante hmm. di cuqante ñun duñ ko yëg buñ tasee nañ tas ñun duñu fatt suñu yoon bañ cee nekk faw affaire ñu koy teg ci géem ba nuy nobante fekkewu ñoo jël seeni ngir nag siiwal ko Sénégal ay jot ci dañ ciy wax ba am neex bu ngeen tas tas rek yéen a bëggante woon ñaanuñ yàlla tas kenn nag. Mm-hmm. suñ sañoon ilal abad lay doon mais bu tax gis nga yéen fi jaay bëri wax barki démb nii rek ngeen dem Touba ki ci nekk takk sa biir di mel ni miketi tëf. Mm-hmm. taxaw di jaay mbëggeel gu farox. Mm-hmm. dund leen ko nañ bàyyi fen yi. xam nga lan la man ni nañ bàyyi fen yi waaye cat bu rey sembal loolu xam ngeen koo bàyyi nañ bàyyi lu ñëw ñu jiñ ko cat ak seytaane. loolu bàjjen fa ñu bàyyi ko de. mais c'est que lépp Sénégal ñu jiñ ko cat ak seytaane. li Ousmane mm-hmm. wax sànq lépp ñoo koy wane. Mm-hmm. déggoo ma la nañ bàyyi lu ñëw ñu jiñ ko cat ak seytaane dafa am yoo xamante ne bëgg ba man fausse góor laa. Mm-hmm. man mënuma wax lii tey suba ma wax lu leneen. dëgg la. jigéen dañ booy sëy dañ la ne nga seey ba pare doon jigéen da ngay muñ. ma ne di góor. am droit am ñeent soxna ndax tey mooy kat. est-ce que yow xam nga lan lañ jotee bay wax. lan lañ jot déggoo li ma waxuma man ba dégg. est-ce que dégg est-ce que dégg nga ba léegi ma est-ce que dégg nga ba léegi sax ma wax waxi jotee. yaa ma laaj sax mais euh, la ma wax. Mm-hmm. ci lii li nga ni moo fi waxoon du takk sax deuxième femme. loolu tax ma wax de. waxoon xaw ma sax joote gi moo waxoon du gàkk deuxième fois. Mm-hmm. ma ne moom miy sëy tey jigéen. Mm-hmm. moom moo fa war a xaabloo di ko déglu nanu may kii jullit la dafa am droit am ñeent soxna bu ko mënee nag. Mm-hmm. bu ko mënee. te nangoo leen yemale ndax lii la ñu wax. d'accord ndax kenn waru cee jeng ku ci nekk dañu war a tolloo. d'accord buñ tolloo ci sa xol sax. wonoo leen ko waaye ci biir nit ñi nañ tolloo danga leen di yamale ci boo ko mënee laa wax. gaaw na na waaye buñ mu fatt. ok. ñun ñu ay góor. day mhm. góor yàlla day mul saadiq. Mhm. war a am ci soxna yi. waaw ci ah, ci ci ci yow nga war a yeewu toog. bàjjen ne ma café. Mhm. fais-moi du café là. jékki-jékki bàjjen ay bopp nga ne eh Fosé. ama daraa ji yooyu ci kër gi di ñuy dem ak ñëw ñun ñuy aw ay réer. d' accord waaye d' accord en doy na waar mais ñu ñaan rek bu fekkee problème la yàlla na yàlla. amiin Ah, parce que lépp mën a nekk nag gis nañ fi ñu tas ba pare àndaat. yàlla sàmm daal. na rafet na rafet rek ah, na rafet parce que ëllëg mënuñu àndaat tamit foofu. d' accord d' xam naa dañuy daal di xuus tamit li ñu dese xam naa bareetul. mais dañuy pëttaxlu rek jaar ci Ngoy Fall borom or yi euh, madame Askia Touré. Euh, or de moom or de yaa ko moom. <laughs> waaw ñuy wax na tamit or yi bëri na lool waaye damaa dégg na tamit dafa. tëriyaane benn photographe comme la ñu wax rek lu wax photographe bi ci boppam moo génn moom leeral que moom màggal Touba la ko woo mu ñëw mu foto ko ba pare la ñu waxante woon fayi ko ba pare wëlbati ko plainte ko mm-hmm. waaye nag damaa jàpp ne nag nit ki bu fekkee nag liggéey na la ba pare nga war koo fay fayoo ko lan moo ci wuti plainte tamit ah, waaye dégg naa tamit ñu ne mm. maître El Hadj Diouf dana waa ji na ko photo waa ji ne ko du ma la foto ndax faraloo ak Sonko. ayoyo <laughs> waay Sonko waay. loolu Ousmane moo koy tere. waaw mais Sonko tamit. waay Sonko waay. mais photographe daa def lu ko man waxuma de. waaw mais Sonko tamit. bu dee li nga wax nii. bu dee li nga wax nii. Mhm. photographe daa def lu ko neex dañ ko jël pour mu liggéey. Mhm. utul ku muy photo ku mu photo. mais est-ce wax ko woon mu photo ko individuellement. bokkul ak. mu mu faral. ak ah, li ko koy fal mais su dee Sonko mi ngi ci la jox ko Ousmane. non loolu da koy liggéeyaloo non man moom nañu waxante ma la waaw waaw man yooyu mais su fekkee noonu la demee laa wax. dama ne la bu fekkee noonu photographe bi dafa def lu ko neex. ok naa faral ku ma saf dañ la dañ la fay pour nga photo photool. Mhm. kii faral kii ñàkk faral kii nga bëgg kii ñàkk bëgg kii lii laay waxati Sénégal. pour lan yooyu yii yii du raison waay. moo tax pour ñu dem dina jafe. fara faralal ku la saf. Hmm. dañ ma fay ngir ma liggéey damay liggéey après nag ka ma bëgg politique la may def loolu man la concerné. d'accord d'accord. ok loolu man la concerné waaye nañu. waaw waaw ma ne est-ce que tamit Ngoy Fall euh, bu fekkee dafa jël nit ki mu ñëw ci li nit ki euh, euh, photographe bi wax nee na moom keroog bi muy ñëw Touba sax dafa feebar mais dafa ñëw continuer ne xam ne mi ngi ci liggéey. li ñu waxante woon ñu photo ba pare mu jël som jox ko ba som boo xam ne bi mu ko ko joxee euh, méngoowul dara ak li ñu waxante woon ba pare wëlbati ko ne